benn simili une euh, minute euh, de une de de prière et de silence euh, téléphone yi bu ñu ko mënee def euh, silencieux wala vibreur dina si am solo tuuti ñu sàkku euh, benn simili. ngir ñaanal ngir fàttaliku une minute de silence et de prière ngir euh, suñu mbokk Ndate Diop bi nga xam ne kenn dootu ko présenté ti ci Sénégal mu nekkoon journaliste bu ama am solo mu nekkoon taskatu xibaar bu ama am solo ci réew mi di def liggéey bu ama am solo Sénégal yëpp teg ci seeni gët Ndaté Diop euh, boobu moom moo dem euh, wuyu ji suñu borom démb muy xibaar bu tiis bi nga xam ne ñun mouvement citoyen jot nañ ko ni ko sénégalais yëpp jotee ak naxar ak metit di profito ci occasion bi kon euh, di jaale di jëbal suñu njaal njabootu Ndaté Diop di suñu njaal RFM ak groupe GFM yépp waaye di jébbal suñu njaal mboolem journaliste mbooleem taskatu xibaar mbooleem organe de presse mboolem kuy yëngu ci wàllu tas xibaar ci Sénégal ñu ngi lay jébbal suñu njaal ndaxte Ndaté Diop ñun ñëpp ko bokkoon ñun ñoo bokk naxar bi ñun ñoo bokk métit bi euh, une minute euh, de prière et de silence Euh, pour euh, pour l'atteindre. jërë ngeen jëf mbokk yi euh,